bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi alanbiyai walmursalin seydina mohammadin ibn abdallah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman bokki jullit yi ñu leen di nuyu baax a baax di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di leen dalal bu baax a baax ci barab bu màgg bu sell bile Eh, waaye naka noonu tamit di leen nuyu baax a baax di leen jaajëfal di leen tatagal ci wuy ji bi ngeen wuy si bi nga xam ne wuy si ngeen ko woote yàlla bile kon ñu leen sant bu baax a baax ci turu sëriñ Moustapha Mbacke eh, di leen dalal bu baax a baax eh, niñ ko baaxoo defee rek ci aljuma yi ci weeru koor tey di ñaareeli aljuma bi nga xam ne moom lañ bëgg amal fi incha allah taala muy waxtaan yi nga xam ne moom lañ fi amal muy ay waxtaan yu am solo yoo xam ne wax dëgg yàlla euh, comme niñ koy faral di waxee rek ci dunduk sëñ maamoor lañ ko tàmbale woon sëñ bi daan ko rafetlu lool euh, bëggoon ci lool ndeysaan euh, waaye dañu njaboot gi di ko wéyal ba mu agsi fii dañaan yàlla mu ngeen koo jëmale kanam kon balaa ñoo dugg ci waxtaan rek di dalal sëriñ bi nga xam ne moo fi war a waxtaane muy waxtaanu am solo Euh, ñu fas yéene ko ubbee rek euh, lenn ci xasida Serigne Touba yi nga xam ne mu ngi ko jagleel euh, weer wi ñu nekk muy saison daal am baarak ki ñu koy ubbil nag di sëñ Badar Diop kon sëñ Badar nga ubbee ñu ko ci lenn ci xasida yi fasal sina fasu wala siyam شعر بي أغلق باب للإيام فاز الذين عافسوا على سيام شعر بأغلق باب للإيام يرون أفضل فطور في الخبور وفي القيامة من المخن الكبير سهد قالق الورى للصائمين في رمضان برداء الخائمين هباتهم هند الإله وافرة نال المنى في درجات الآخرة رد لغير مذاب النار بغير درهم ولا دينار رفعهم بالرمضان الرافع نفعهم بالصلوات النافع مد لهم من النفوس الباقي سل أردين السبق والتباخ دفاية الباقي لدى الجنان تموانا أسوم بامتناع أجر الذي ما عنده لا ينفد أجر كبير ما دراه النفد نغو صيام في شعر في الدارين يكفيكم الحارين والنارين حبتم الله الكريم الأكرم بخير شهر قد يقود الكرم إلى سواكم تنتهي النيران يوم القيامة كسى القسران ملكتم النفوس في النار تنو لخيركم سونتاري أبواب جنة النعيم فتحت للسائمين والجميع انفتحت لكم لدى الفطور واللقاء يا قوم فرعتان باتخائي ستعلمون أن ربكم كريم وأن عنده أجورا لا تريم سكرتم الله على شعر الصيام ستدخلون جنة دون إيام سكرتم الله على شعر الصيام ستدخلون جنة دون إيام سكرتم الله على شعر الصيام ستدخلون جنة دون إيام بهذه الأبيات وأخرجها إليهم li takkuuna futuurum yowmal hin wallahu ala ma naqul wakil léegi am na solo lool tey dafa jàlla jàll na bu baax a baax rek ñaanal suñu borom subhaanahu wa taala baax a baax kon mbokk yi ni ko waxee rek tey mooy ñaareelu aljuma bi nga xam ne moom lañu war a amal waxtaanu am solo yi nga xam ne moom lañu fi baaxoo amal ci njiital Serigne Moustapha Mbacké di xalifa sëriñ Mamour Mbacke Fadal eh, ñu ñaanal yàlla sëriñ Mamour Mbacke Fadal yàlla na yàlla dolli ay ngërëmam dolli ay leeram waaye naka noonu tamit njaboot gi suñu borom subhanahu wa yàggal leen fi ñu ànd ak ñun ci liggéey bi le di sant bu baax a baax mboolem mbokk yi nga xam ne yéen a wuy si woote bi le muy woote bi yàlla eh, comme ni ko suñu borom waxee ci alquran rek yaa ayyuhal lazina amanu stajibu lillahi wa lirrasul iza daakum lima yuhyikum suñ borom nee na yéen ñi gëm yàlla euh, bu ñu leen woowee ci luy dundal luy dundal seen roox nangeen ngeen na ngeen wuy si te tali euh, dara gënu ko ne nen nekk luy dundal ak roox kon ñu ngi ci sant mbooleem mbokk yëpp rek di ñaanal dina ñaanal suñu borom fay leen yiw euh, waaye naka noonu mbokk yi waxtaan wi suñu amal gi ñu ko amal dañ koy faral di tuddee ay daare alquran tey nag ñu tànn ñaari daara alquran tuddee leen ko kenn ki di sëriñ ndaraw gasama Euh, moom di jàngalkat alxuraan bu mag a mag tuddee nañ ko moom lañ ko tuddee teew na ci teew na ci jataay mook ay waa këram euh, suñ Mamoon Ndiaye moom it di ab suñ waaye naka doon tamit ñu tuddee ko euh, Serigne moom it di doom ci sëñ Assane Ndiaye moom bokk ci ñu ko tuddee teew na fi mook ay waa këram ñu ngi leen sant bu baax a baax tey na waxtaan yi ki koy amal di sëriñ Abdou Lahad Mbacké Serigne Abdou waajuram góor bi Cheikh Mahmoudul Basir ñu gën koo xam ci sëriñ Modou Mbacké moom sëriñ Baara Khuraja moom borom saam euh, foofu la askanoo bu dee ci wàllu waajuram jigéen soxna maam Awa moom sëriñ Abdou Khadir Mbacké euh, sëriñ euh, sëriñ Abdou nag jànge alquran ci magam bu ñuy wax sëriñ Sohay bu Mbacké sëriñ Sohay bu Mbacké moo ko jàngal alquran ba fa la wattoo bind fa téere yàlla bi waaye naka tamit mu jàng fa xam-xam ci téere yu baree bari ba àgg maqamaatul xariir ak alfi ibnu malik waaye naka noonu tamit mu daal di jàll dem Mauritanie euh, ba mu demee Mauritanie jaar ci baadiya yi jaar ci ay euh, ma maanaam borom xam-xam yu mag a foofu ca Mauritanie euh, am fa ab diir jàng fa xam-xam yokk fa mustawaam bu baax a baax ba amee fa ab ab kon loolu wax yàlla doy na maanaam jaaruwaay ngir jàng na fa mu war a jàngee ginnaaw may xamee ne juddoo na fa mu war juddoo Euh, tey nag mu war a amal waxtaan wi waxtaan wi nag tey aju ci wàllu sexra as sexra bu ñu a as nag mooy njabar njabar na mbokk yi doon loo xam ne lu doy waar la doon lu yaatu sax rawatina jamono bii ñu nekk euh, jamono bii moom ci la gën a yaatoo njabarkat yi ci lañ gën a baree euh, rawatina wasaayil alam yi ñu jëfandikoo muy internet bi boo ci duggee da gis ne kenn ku nekk rek yaa ngi woote maanaam njabar gisaane façon yu mel noonu Euh, nit ñëpp maase topp loolu te ku ne xam na ne euh, am na aayaatu xuraaniya yu bare bari yoo xam ne euh, mu ngi tëkkoo ci loolu ndax noonu tamit ay xadis yoo xam ne yonent bi sallam mu ngi koy jàngale ngir tere lu mel noonu kon tey Sëñ Abdou ci tom boobu lay ñëw ak ñun lenn rek lañ koy cëslaay mooy doy na ci njabar yées gum yées mooy yonent yàlla Moussa bi ko yàlla yu yónnee ci Firawna te joxoon ko jumtuwaay wu am solo muy yat woow nga xam ne euh, bu ko sànnee mu nekk jaan euh, ba nga xamee ne maam ñëw na indi miracle boobu muy kéemtaan googu euh, ñooñ firaw na yi ak njabar lañ ko tegoon ngir jàppoon nañ ne njabar yaatu woon na yaatu goo xam ne jàppoon nañu daal maanaam xar baax mënta am moom lépp lu nit am lépp lu lépp lu am rek maam ci njabar la ko nit ki teg moo tax firaw na bi Moussa bi mu ñëwee maam gaaral loolu firaw ne ko ajitana li toxu dejana minar dina bi sexrika yaa Moussa yow daal Moussa da ñëw ngir eh, génn nañu suñu réew génn nañu suñu dëkk ngir sa njabar waaye nag fa fala naati yannaka bi sexri mislihi fajal baynana wa baynaka mawidan la nuxlifu nahnu wala anta makaani siwa léegi daal yow da ngay dañu fixé ab rendez-vous boo xam ne kenn ci ñun ñaar du ko wuute kenn ci ñun ñaar du ko wuute su boobaa nag danañ indi njabar gu na yow danañ la concurrencé yow Moussa da ngay njabar waaye danañ la concurrencé waaye ngir jabar mbokki yi ñàkk gum ñàkk solo ak mujjantalam maanaam naax saay gu me naax saay ba nga xamee ne maanaam fixé na rendez-vous boobu daje comme ni ko di nen leen nettalee rek bi xamee ne Firawna wax na ko fa sawfa na'tiika bi sihrin misli misli sihrika danañ la indil njabar gu gën a màgg sa njabar gi waaye bee nga xamee ne yonent Yàlla Muusaa ñëw na suñu borom digal ko ne ko sànnil sa yadwa ba ko laataa ma ko sànni fekk njabarkat yi ñoo ñëkk def seeni njabar daa di def la ñuy def ci tënk rek xam naa ngir jox euh, mbokk mi euh, ba Muusa indee dëgg comme ni ko alxuraan waxee fa waaqal xaq wa batala maa kaanu yaxmaloon la ca topp mooy fa xuli fa xuliba hunaalika xal bu saaxirin boobaa foo lu saaru ci saa jiin ñoom ñëpp ñu maase sujjóot xam ne kat lii du dëgg la xam ne maanaam moom moom la moom moom la yonent dëgg kon mbokk yi thème ci la ñëw su ko defee ñun ñëpp ñu maase ànd teewlu ko bu baax a baax a baax ngir mën cee mën cee mën cee taataane loo xam ne ëllëg danañu am njariñ kon sëñ Abdul Ahad dafa dal mas bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alambiyaai wa sayidi almursalin sayidina wa nabiyina wa mawlana muhammad alnabiy lumi tabibi qulubina wa ajsamina wa arwahina wa ala alihi wa ashaabihi wa xadimihi cheikhina ahmad alxadim alayhi akbaru ridwanillahi taala albaaqi alqadim wa ala jamii ummati kullihim ajmaina ila yawmi ddin amma baadu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa ngi nuyu mbokk yépp di ziyaare ñépp te di leen ndokkeel ci weeru tedd wi ak bis bu màgg bi su àjjuma di leen ci ziyaare di leen baalu àq di leen baal di ñaan suñu borom boole ak jéggal ñun ñépp defal ñu tawfiix defal ñu ak nangu may ñu ñu yàgg fekk fekke weer wi te yàgg ci am tawfiix ju kawe njort ci mbaaxam ak ma dem di jiital ci nuyoo beeg ziar bi mboolem kilifa yi teew ci jotaay bi ngi dalal ñëpp di am mbégte bu baax ci jotaay bi di di ko rafetlu bu baax itam di ñaan yàlla na bokk ci jotaay yi suñu boroom nangu jotaay yi suñu borom gërëm te njàgg koo amal lool. Euh, te saa su rek mu yokk tey gën a tawféexe incha allah di sàkku itam ci mbokk yëpp ñu fàttalikul ñu suñ kilifa gi sëriñ Mamoor ci ngoonu àjjuma gi ñaan yàlla na ko suñu borom yokk ay ngërëm yokk ko yërmande te gën a teg loxoom ci njaboot gi ñu ngi ñaan na ko ñëpp ñaan ñëpp wax amin ci barke bis bi suñ borom gën ñu ko fayal aw yiw lim doon sonn ci xeet wi lim doon sonn ci yoon wi yàlla na ko eh, suñ borom gën a gën ko ko wan gën koo ful ci mbaaxam ak yërmandeem kon ngir rek bañ waxtu wi di gën a gudd ni ko sëriñ Mamoor junje tey kon ñu war a waxtaan ci xëy na sax ñaari mbir lañ doon wax bu fekkente ne waxtu wi mate na ko muy njabar ak carte euh, incha allah euh, bu ko defee dañuy njëkk rek ci njabar kon incha allah bu ko defee bu fekkente ne waxtu bi maye na ko ñu mën a jàll ci beneen xaaj bi ci des incha allah kon euh, njabar buñ koy wax dañ naan ay yëngatu la ak i jëf yoo xam ne ki koy def da koy def ngir euh, gërëmloo jinne yi ak seetaane yi bu ko defee ñoom it ñu am ay yitte yuñ koy taxawul am ay taxawaay yuñ koy féete loolu rek mooy njabar bu ko defee nag foo ko fekk nag saa su ne seetaane dana ci amul yoon amul benn njabar rek lu dul ne ci jinne muy seytaane yi jinne yu bon yi jinne yu weddi yàlla yi ci ci ñoom lay jaare njabar gu mu mën di doon rek njabar yépp euh, loolu mooy li gën a wér xëy na nag li ciy wuute mooy day am boo xam ne ki koy def day gisante ak seytaane yi di wax ak ñoom ñu tontu ko am ci boo xam ne nag loolu du ci am moom day def li muy def rek bu ko defee ci jëf jooja ci la seytaane yi di sukkandiku daal dem def li ñuy def ñoom it ndax jëf jooja day am day mel ne ab junj lay doon ci ñoom bu defee lii rek ñoom dégg nañ ci ne kii kat lii la bëgg bu ko defee ñu ànd ci ak moom ngir ne saa su ne jëf yooyu da doon jëf yu neexul yàlla ngir bëgg nag nit ki di gën a xuus ci ak weddi moo tax ñu koy jàppale ci bëgg-bëggam boobu bu ko defee ñoom saa boo xam ne nit ki jug na ba def loolu rek ñoom it ñu daal di def la ca nit ka doon euh, sàkku bu ko defee nit ki day gën a mën a xuus ci ak kéefaru ak yu mel noonu euh, loolu mooy njabar ci tënk moom nag lu am la lu wér a la lu am la am na ñoo xam ne dañ koy weddi naan amut nit kee koy bàyyi xel rek wala nangam ak nangam waaye lu wér a wér la ndax alxuraan na ko yenn aay yi sëñ Maamoor mi jàng wattabau ma tatlu shayaatinu ala mulki suleyman wa ma kafara suleyman walakin ashayaatina kafaru yuallimuuna annaas assixr ma unzila ala almalakayni bi baabila haaruuta wa maaruut wa maa yuallimaani min ahadin xatta yaquulaa innamaa naxnu fitnatun falaa takfur fa yataallamuuna minhumaa maa yufarriquuna bihi bayna almar'i wa zawjihi waaye wa maa hum bi daarriina bihi min ahadin illaa bi idnillaah ak ay ci bare na ci ay ay alxuraan yu bare bare yoo xam ne dana ko tudd mooy wane ne kon lu sax la lu wér la bokk na ci liy tegtal ak saxam amit ak saxam tamit mooy ñëw na ci xadis bu wér boo xam ne buxaari ak muslim ñoom ñaar ñëpp nettali nañ ko ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallama jot nañ ko e, njabar ba jeexital ci yaram wi sax daan diisal yaram wi e, nga xam ne léeg-léeg day jàpp ne def na dara fekk defu ko lu mu war a def day jàkk jàpp ne def na ko fekk defu ko fekk loolu njabar gi moo ko jàpp e, loolu lu wér la loo xam ne mi ngi ci as-saxiixayn ñu ci xadis yu wér yi euh, ku ñu wax labid ibnul asam al yahudi moo moo ko njabaroon ndax yahudi dañ koo yàgg njabar ba sonn sottiwut mujj nag ñu daal di dajaloo ñoom ñëpp daal dem ci ka nga xam ne jàpp nañ ne moo leen ci man muy labid moomu ibnul asam mu fexe ba jël dara ci ay kawar ci kawar yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yoo xam ne ci ab peñe lañ ko jëlee peñe bu mu daan peñe woo dara ci ay kawaram des ca ci la ko jël def ca la mu ciy def Euh, boole ko ay puso fas ci fukki fas ak benn def ko ci ab teen euh, ci la moom lam ci jublu woon nag mooy yonent bi sallallahu génn àddina mu faat faat la ci jublu woon waaye loolu yàlla sottalu ko waaye li mu def rek mooy am na jeexit ci yaram bi daan diisal yaram bi ak léeg-léeg muy jàpp ne def na dara fekk defu ko lu mu war a def ay jékki-jékki rek mel ne def na ko fekk defu ko suñ ba mu soob suñ borom waaye yàggut nag moom ay fan yu néew la rek gannaaw bi suñ boroom daal di yebal jibril ak mikail ñu daal di ñëw dindi ko tegtal ko fa mu nekk mu yebal Seydina Ali ak lenn si saxaaba yi wax leen ko ñu daal dem sulli ko génne ko ci la ko suñ boroom borom eh, feddlil suratul falaq ak suratul naas waaw ndax eh, saar yooyu dëgg la màkk lañ wàcc waaye day mel ne dafa wàccaat ma dina gannaaw xew-xew bi màkk la njëkkoon a wàcc nag waaye ginnaaw bi xew-xew bi la wàccaat Madina kon lu wér-wér la loo xam ne lu am la am na nag ay xeet yu baree bari juñu naa ko léegi am na ci yoo xam ne ki koy def day àgg ci xam yoon wi muy jaar ba gisante ak jinne ji daane ko lii laa bëgg jinne ji tamit ne ko lii laa bëgg saa su ne tamit la ko jinne ji di def moom day doon lu araam waaw bindal aaya yi ci deret ji wala jëlal kaamil bi nga dugal ko ci wanag wi def dana ko defloo daal loo xam ne lu sharia araamal la wala loo xam ne sax luy génn nit ki ci diine ji la jëf joo xam ne ku ko jëf ab yéefar la jëf yu mel noonu ñaare moom la koy defloo bu ko defee bu ko defee nag seytaane bi daal dem def lam koy defloo léegi nag liy jaaxal nit ñi mooy ginnaaw yàlla mooy def lépp mooy sottal lépp loolu naka lay mën a nekke lu mel ne njabar goo xam ne dañuy njabar nit ba dëddale ko ak ku bëgg wala ba forcé ko ci bëgg ku bëggutoon wala yu mel noonu waaw loolu yomb na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne inna cheytaane yajri min ibni aadama majra dami cheytaane yàlla may na ko dooley muy dugg ci biir nit di ko bëggloo di ko mën a bëggloo di ko mën a bañloo di ko mën Euh, jortuloo di ko mën a xalaatloo di jax-jaxal xel mi loolu doole jooju yàlla moo ko defal seytaane léegi nag ci foofu lay jaar rek di def li muy def ci doomu aadama ko kon am na si yoo xam ne nag ki koy def du àgg ci daraja jooju darajay gisanteeg seytaane bi wala jinne bi waaye ni muy def rek mooy euh, day am jeexit yu muy jël dala ci jeexiti ki muy jabar ak nangam ak nangam bu ko defee loolu euh, la muy def itam ñaaree foo ko fekk lu araam lay doon bu ko defee bu ko defee dana am jenn seytaane wala jenn jinne joo xam ne mooy daal dem daal koy jàppale ca loolu mu bëgg ngir bu ëllëgee kooko man koo defaat di gën a continuer ci ak kéefar ak bàkkaar rek euh, ba tey am na ay xeet ci wuuteeg jëmmi seytaane yi nga xam ne ñoo yore njabar gi ni ma ko waxee njabar gu mu mën di doon rek ci àddina ci seytaane lay jaare am na ci yoo xam ne nag seytaane yu am doole yi ñoo ko yore kilifa yi jinne yi ndax jinne yi dañoo ëppante doole dañoo gën a ñi am na am na ay kilifa am na ñu gën a suufe moom la ñuy wax naan as suuf sufli wala as sixru aswad suuf sufri mooy bi nga xam ne jinne yu eh, ñëw yu yem yemaan yi ñoo ko def bi ci des nag mooy jinne yi am doole yi jinne yi ñuy tënk ci weeru koor mooy ndax dafa wax ne wa sufi wa sufidat maradatul jinni kon jinne yu am doole yi rek lañuy ñuy tënk ci weeru koor yooyu noonu mooy yi nga xam ne eh, eh, ñoomit it loolu tamit xeetu xeetu xeet la ci njabar boo xamee ne kilifa yi la am yoo xam ne ci des la dañuy wuute nag ndax dañ naan bi nga xam ne jinne yu mag yi yu am doole yi ñoo ko def boobu du songoonoo nit ki benn yoon bokk na ci ni muy manifesté woo day dikk ndànk ndànk ndànk ndànk ndànk ndànk ba jekku nit ki nag bu xasee jekku nag moom du neexa du tey lijjanti bu dee beneen bi ci des nag moom ñaare day songoonoo nit ki day gaaw boobu mooy xaw a gën a neexa saafara tuuti mooy as suuf suufli ba tey bokk na ci ni ñu leen di teqalee dañ naan sixru suuf lii mooy bi nga xam ne ba ci lu mel ne weeru koor sax jeexitam day continuer ndax wax nañ ne jinne yi ko yor duñ ñoom duñ leen tënk ci weeru koor gi bu dee sixrul aswad nag mooy bu am doole bi mooy bi nga xam ne jinne yu am doole yi ñoo ko def boobu moom day néew doole day tënku ci weeru koor gi ndax jinne yi koy def dañ leen di tënk jinne yi ko yore jinne yi ñu koy wakiil ñoom dañ leen di jéng ci weeru koor bi waaye euh, ci wàllu loolu mooy façon yi njabar yi ci niñ wuutee ci wuuteeg jëmmi euh, kii njabar ak jinne euh, ji nga xam ne moo yor njabar gi bu fekkente nag ci wàllu jeexit ja cay juddoo moom tamit ay façon yu baree bari la te yépp yu yàq la bokk na ci sixru salbil iraada boo xamee ne bëgg-bëggu nit ki ci boppam lañuy dindi nga xam ne bëgg-bëggu kane ki ko njabar rek lay topp waliyaadu billaahi taala loolu ci ci ci ci yées la bokk bokk na ci itam boo xam ne moo ci boobu lay dugg tamit teqale ñaar ñoo xam ne waroo leen a teqale boobu moom la suñ boroom tudd noonu ci alquran fa yataallamuuna minhuma maa yufarriquuna bihi bayna almar'i wa zawji waaye am na ci yoo xam ne sax dañ koy def ba mujj daal di doxloo nit ki ndax yooyu yëpp wax naa ko léegi ne inna sheytaana yajri min ibni aadama majra dami noonu lay mën a dugg ci xel mi ba jaxasoo ko ba jaxase xel mi ba xel mi dootul nekkati li li nga xam ne moo nekk ci yuur gi di doxal xel mi foofu lay dugg daal di yàq loola moom jënne ji bu ko defee nit ki de daal di dof complètement ba tey euh, bokk na ci xeet yi xeet yi nga xam ne danañ ko yàq tamit dem ba faat nit faat nit loolu nag mën naa nekk ci ay anam yu wuute anam mépp anam bu doomu aadama di faate rek mën naa nekk jinne ji di jël poson def ko ci lu nit ka di naan wala lu nit ka di lekk bu ko defee di jékki-jékki rek feebar feebar bu gaaw faatu faatu bu gaaw fekk poson boo xam ne ci jinne la jaare moom la jëfandikoo ndax dañ koo njabar njabar faat ko bu ko defee ba njabarkat ba defee la muy def ba noppi jinne ji daal dem jël poson rek fexe ba def ko ci lekk kooka wala naan kooka moo tax ñuy wax ne booy lekk ak ngay naan na nga tudd yàlla muslu ba yooyu yëpp mën a sori sa lekk insha allah am na nag yoo xam ne dafa xaw a jege ak njabar te doonu ko xam na yu xaw a nuroo ak moom yuñ koy jaawaleel loolu tamit ñaari xaaj la loo xamee ne lu dagan la day nuru njabar waaye du lu njabar lu dagan la ak loo xam ne du njabar nag dëgg la waaye dafa xaraam ni njabar xaraame loolu tamit euh, euh, lu mat a lu mat a xàmmee la ndax ñu bari dañuy def erreur yu mel noonu day am yoo xam ak ak itam loo xam ne njabar la te ku xamul da ngay jàpp ne du njabar am na ci yoo xam ne njabar la waaye nit ki mën naa jàpp ne du moom comme kon yi nga xam ne jaawale mën na caa am loolu tamit lu mat a xam la moom lañu bëgg a leeral ni allah bokk na ci xaaj boobu mu mujj tudd léegi muy yi nga xam ne. moom la dëgg waaye nag nit ki mën naa jàpp ne doonu ko moom lépp loo xam ne day nuru lasraar nga xam ne lasraar nga koy jàppe waaye lu araam am na ca wala ñàkke war ma alquran am na ca ñàkke war ma alquran am na ca lu mel ne bind alquran ci deret wala juutal alquran walla def ko ci bërëb bu salte wala bërëb bu sobe foo ko dégg rek xam ne loolu njabar la alxuraan jooja du ca dara jinne ji dafa bëgg sax nga def noonu alxuraan ja ba mu mën a def la muy def waaye nekkul ne alxuraan ja moo indi jeexit jañ jañ cay jañ cay séentu noonu kon loolu lu mat a xam la saa boo gisee lenn luñ lay nuru lastraata rek waaye boo ko xoolee ba ci biir lu araam lu ñëpp xam ne araam na lu leer naa ñi am na ca loolu ak njabar la waaye bokk na ci xeeti njabar njabar yoo xam ne mën nañ ko tudde njabar njabar gu sotti njabar gu sotti maanaam ay téere wala ay ndomba yoo xam ne ñoom dañ koy def bam ba mu nekk tege nee da nga naan ah lii téere muslaay la rek fekk téere njabar la lu ko waral mooy téere njabar la joo xam ne moom mi ko defar waa ji ko defar noonu di ko jaay da caa kóllërante ak i jinne ci doole jinne ci la ko sukkandiku comme ni nga xamee nit ki dina bind ab téere ci alquran nga xam ne barkeb alquran bi mooy nekk ci téere ba di aar ki ko takk ñoom nag day am ndomba ak kii yoo xam ne jinne lañ ci ko lëranteel bu ko defee day wane ne jinne ji mooy aar ak di jàppale ki nga xam ne moo takk ndomba googu wala téere boobu moo tax lépp loo xam ne du alquran rek dañuy bañ ko ko lu alquran wala wax ju leer naan joo xam ne xam nañ ne ay tudd yàlla rek ca nekk wala luy dellu ci yàlla dafa xaraam nit ki di ko nit ki dafa xaraam nit ki di ko takk ndax yooyu foo ko fekkee rek noonu lay deme kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax bokk na ci xeeti ndomba yi yoo xam dañ ku la tëkku rek dana ko gis ku nangam nangam yooyu foo ko fekk rek eh, ku ku ku tëkku jinde yi ñooy dem dal ci sa kaw nga feebar wala nga nangam bu ko defee nga naan ndomba gi baax na wala nangam nangam fekk loolu ak njabar la xeetu njabar gu doy waar la doy waar la gu yées la kon ñu moytu yu mel noonu kon bu baax a baax a baax bokk na ci euh, yi nga xam ne xay na du njabar waaye moom it dafa xaraam mooy loo xam ne lasraar la dëgg la waaye yow yaa ko jëfandikoo ci anam gu anam gu xaraam yaa ko jëfandikoo jublu def ci lu araam bu baax day daal di araam ngir jubluwaay bi nga ci am lu mel ne xeeti aaya wala xeeti saar yi nga xam ne tajriba nañ ko nattu nañ ko ne ku ko def ci aajo sàngam mu faju yow nga daat koy jëf daal jublu aajo ju araam miin nañ ne ku jàng yaasin nangami yoon ñetti yoon juróom-ñaari yoon aajo joo ci fas yàlla defal la ko yow nga jàng ko daan ne yàlla diw dee yàlla diw dof loolu mën naa sotti loolu nag du njabar waaye lu xaraama xaraam la bàkkaar la te ñu wax ne al qatl bi doyen al qatl bi sayfi kooku mën naa am sax bàkkaar rey nit kon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax bokk na ci yi nga xam ne dafay xaw a nuroog njabar te bokkut ak moom li nga xam ne sëñ Mor Lo jublu na ko léegi muy gisaaneeg borom pettaaw yeeg xeet yooyu mboolem ñooñu nga xam dañuy wax ne dañuy seet ak nangam nangam te boo leen xoolee ñoom ñëpp di dellu ci ay jinne nga xam ne ay jinne ñoo leen di tegtal loolu du njabar bokk ak njabar loolu gisaane lañ koy tuddee wala kahaana loolu tamit dafa xaraam dafa xaraam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tëkkoo na ci daal ku ko def bu fekkente ne ku ku dem ci moom bu fekkente ne gëmut la mu ko wax yàlla du nangu ak julleem ñeent fukki fan bu fekkee gëm na ko nag moom ab yéefar la kon euh, loolu tamit du njabar waaye lu xaraam la euh, mook njabar ñoo bokk àtte ci ak bon akuk xaraam akuk mata akuk mata moytu ak yi mel noonu yépp daal waaye noonu la amee tamit yoo xam ne ku xamut mën nga koo jàppe njabar euh, mooy am na lu ñuy wax lasraar Euh, moom mooy xeeti aaya alquran wala saar wala turu yàlla ak lu mel noonu loo xam ne nattu nañ ko ci jëfandikoo ko ci anam sàngam nit ki jëfandikoo ko ci anam guy jariñ loola lu dagan la luñ mën a def la bu baax a baax nekkul ne saa boo xamee nit ki mu ngi bind rek wala nangam loolu daal dugg ci njabar déedéet dañuy wax ne même bu fekkente ne sax euh, euh, li ñuy wax xaatim nga xam ne daa doon loo tënk ak tur yàlla nga ciy tënk wala ab ay alxuraan ngay tënk moog li ñuy wax talsam ñoo bokk loolu euh, ibnu xajar alhaytami wax na ci alfatawa alxadiisiya ne ñenn ci boroom xam-xam yi dañ ci juum di wax ne ci njabar la bokk waaye dug njabar daan lu dagan la daane boo gisee musa musalas loolu ñuy wax musalasul Ghazali ñu koy askanele mooy al imaamul Ghazali da ko daan jëfandikoo lu bari daan ci jariñu te daan ci jariñ ay nit ba mujj ñu koy askanele daal di leeral daan ne euh, xaatim boobu ñuy wax musalasul Ghazali nekkul ne moom moo ko créé daan ne jiitu woon na Ghazali lu lu yàgg Ghazali da ko da cay siiwoon ndax fonk gum ko fonkoon loolu ibnu xajar alhaytami wax na ko ci téeram boobu di alfatawa al xadifiya daan ne nag daal di leeral ne xeet yooyu muy xaatim yooyu ak talsam yooyu bu fekkee danga koo jëfandikoo ci luy jariñ euh, lu mel ne faj faj ku tawat walla yu mel noonu wala ñaan ci sa aajo fas ci aajo sàngam loolu day dagan waaye nag bu fekkee da koo jëfandikoo ci Euh, yii ma wax nii ci yi nga xam ne dañ koy defe ci njabar loolu bu baax du doon njabar waaye bu baax dana araam daal di leeral ne boo gisee ku mel ne xaraaf yi waxoon ne xaatim yeeg yooyu yëpp njabar la lu mel noonu la jublu mooy xaatim yoo xam ne nit ki da koy jëfandikoo di ci dofloo nit wala yu mel noonu kon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax bokk na ci yi nga xam ne itam nit ki mën na koo jàppee njabar fekk doonu ko lu mel ne faju ci ay xob ak ay garab ak ay sunguf yooyu dara nekku ci nit ki mën na koo jëfandikoo bu baax a baax te dañ ci gën a dikk ci kanam euh, rot na ci ay xaj nekkul ne faju ak muslu ci seytaane yeeg ak mboolem yi nga xam nit ki dana ci sàkkoo muslu nekkul ne ci lu ñuy jàng wala ci aaya alxuraan rek lañ ko mën a defee déedéet rot na ci ay nettali yu wér euh, ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ci lenn ci saxaaba mel noonu faju ci ay tàndarmaak ay loo xam ne meñet la ay lu mel ne olive ak lu mel ne xobi déem danañ ci gën a dikk ci kanam incha allah kon ñu koy tuddee at bi bil a'shab loolu tamit bokkut ak njabar donte nit mën na ko mën na ko cee foog léeg-léeg xëy na li koy waral mooy njabarkat yi nag dañ koy faral di jëfandikoo lu bari loo tax xay na ñenn ñi di ko ci bëgg boole waaye bokkut loolu daal li siy araam mooy bu fekkente ne dañ ca rax la neen bu dee sunguf soo xam ne xëy na dañ caa tifli ay turi jinne nga xam ne waa ji dafa màggal ay jinne kañ leen yëkkati leen noppi tifli ko ci sunguf sa loolu moom njabar la kenn sañu ko jëfandikoo wa hakada ak mboolem yi mel noonu ci anam gu gu gàtt rek léegi lan mooy màndargay njabar luy màndargaal ne nit ki njabar mi ngi ci moom nit ki bëgg a xam ba xam njabar nañ ko wala déet lan moo koy màndargaal saa boo xamee ne gis nga jeexit joo xam ne gisoo yow lu koy waral ci kaw gi xam nga lenn lu ci nekk am na lu koy waral lu mel ne gëmmeentu sonn ak yooyu moo koy waral fekkee sonn nga walla nga gëj a nelaw ci ngay war a mën a gëmmentu bu fekkee gëjoo nelaw nag ba noppi di gëmmeentu rek mer tamit ñu wax la wax ju ñaaw wala ñu def la ko ñu jëf la jëf ju ñaaw ak yu mel noonu moo ko war a waral waaye ngay jékki-jékki rek di mer sa xol di tàng te xamoo gisoo ku la wax gisoo ku la def nga xam da nga naan atharum bilaa mu assir munta ñàkk sax waaye mu assir laa bëgg a wax asar bilaa mu assir munta nekk waaye asarum bilaa mu assirin zahir nga gis jeexit waaye xamoo lu ko waral te amut lu ko waral ci kaw gi lu ci ëpp loolu foo ko fekk loolu bokk na ci lii màndargaal ne kii lii ak njabar dafa nekk ci moom ak lu mel ne itam yaram wi di diis te amut lu ko waral gisut fitna dara lu tegu ci moom ci lu dul euh, euh, luy war a waral diisaayu yaram bi daal defu ko loolu tamit ci la bokk na si eh, yiñ koy xàmme ko yiñ koy màndargaale mooy li ñuy wax nit ki jàng aayaatu ruqya aaya yi nga xam ne da koy saafara da koy dindi bu ko nit ki jàngee rek daal di yëg ak woyof ci jëmmam ak ci yaramam loolu bokk na ci li koy li koy tegtale ne mi ngi ci moom bokk na ci màndarga yi kon loolu ba tey bokk na ci màndarga yi nit ki feebar feebar boo xam ne euh, docteur yi mënuñu cee am benn xam-xam loolu itam lu ci ëpp foo ko gis rek loolu lay doon day wane ne kon ak njabar rek la waaye bokk na ci yi koy yi koy tegtale nit ki ay gént yu jaxasoo gént yu lëndëm gént yu jaxasoo ak euh, euh, di gént ci di nekk ci biiru salte lu baree bare yooyu wax nañ ne bokk na ci yi koy tegtale bu fekkente ne nag ay ay loram ak yàq-yàq yi nga xam ne dana ko jur benn dana ko jural nit ki moo xam nit ki nga xam ne mooy njabarkat bi ci boppam wala nit kiy dem ci moom di fa njabar nit wala nit ka ñuy njabar ak sax mbooloo mi yépp ñépp lor kese la ci ñoom ndax suñ boroom dafa wax ne wa yata'allam wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum di leen di lor rek waaye du leen jëriñ dëgg la nag kuñ ci lor dafa fekk mu soob ko moom suñ boroom subhanahu wa taala kon bokk na si ay loram mooy noonu ko suñ borom waxe mooy lor kese la làmbawut benn njariñ lépp lu ciy njariñ boo ko xoolee ba ci biir danga xam ne du njariñ lu mu nuru nuru dara rek xamal ne du dara ndax euh, day yàq li gën a am solo ci nit ki muy pas-pasam ak diineem ci ñoom ñooñ ñépp ma wax muy ki koy def moom kooku moom dafa alku moom moo kii njabar ci boppam moo gën a yàqu moom waaye kii dem di ko deflu tamit kooku tamit mu ngi ci yoon wa parce que sam ci suñ borom ak jullit ni mu war a nekk ne bu jaaxlee ak bu jaaxee ci suñ borom lay dellu day mel ne kooku loolu jug na ci moom muy dem ci koo xam ne ay jinne lay waxal ngir ñu sottalal ko ay mbiram donte moom day wane sax ne la mu fay wuti lu lu baax la fay deflu wala dara pas-pasam Mm, yàqu na ba noppi euh, maqaasidu sharia yépp sax boo seetloo njabar da koy yàq xam nga dañuy wax ne lislaam lépp lu muy digle ak lépp lu muy tere boo ko seetee ba ci biir dafa jubloo benn dafa doon luy sàmmal nit ki diineem walla luy sàmmal nit ki bakkanam walla luy sàmmal nit ki am xelam wala luy sàmmal nit ki aw askanam ak luy sàmmal nit ki nit ki alalam ak luy sàmmal nit ki ab deram mboolem atte islam yépp ngir sàmmal doomu aadama juróom benn yii moo ko waral bu dee sàmm diine moo tax ñu indi jihaad ku tubbi ñu ray la ngir kenn bañ a tubbi rek bu mën a sàmm sa diine sàmm xel moo tax ñu araamal sàngara ak yu mel noonu sàmm bakkan moo tax ku rey nit ñu rey ko araama rey nit ngir mën a sàmm bakkan sàmm alal moo tax ñu araamal sàcc ak daan yiñ ci tege yépp sàmm askan moo tax ñu araamal njaalo ak yu noonu sàmm ab der moo tax ñu araamal tuumaal nit njaalo ku ko def ñu teg la ci ay daan waaye njabar yooyu yépp nag da koy yàq bu dee pas-pas moom mooy loolu day daanaka nit ki du gëmati yàlla waaye jinne yi lay gëm bu dee xel tamit wax naa ko léegi bokk na ci xeeti njabar yi njabaru dofloo nit ki sax ba yàq xelam bu fekkente ne bakkan tamit bokk na ci xeeti njabar yi njabar nit ki baraay ko faat ko bu fekkent ne wàllu askan moom it Euh, bokk na ci mën naa andi jafe-jafe bu nekk ci ci biir ci biir aw nit ci ci ak mbokk ak ci ak jaxasoo bu fekkee wàllu alal tamit moom ci la ak yàqam gën a fese sax ci jamono ji euh, gis naa ab gëstu boo xam ne wax na ne Égypte rek Égypte at mu nekk li ñuy fere ci ay xeeti njabar ak yu mel noonu mat na juróom-ñett fukki million ak juróom ci dollar eh, ci ay million ci dollar nga xam ne daanaka dana jege ay ñetti téeméeri milliards ci xaalisu réew mi at bu nekk boo bëggoon a xam tamit liñ ci yàq ci xaalis ci réew mi yow boo nattalee ne njabarkat yi nekk ci réew mi yépp man nga leen nattale ci junni ci misaal nga ne junni kese léegi am na ci ñoo xam ne liy jëm ci ñoom ci alal dana mat million am am na ci ñoo xam dana ko ëpp moo gën a bari am na ci ñoo xam du ko mat waaye nga wax ne million kese ci benn njabarkat bu ne loolu kon day mel ne weer wu nekk rek njabarkat bu ne million de euh, euh, wu nekk junni million ngi noonu muy milliard lu mu néew néew kon ci réew mi ay milliards et milliards danañ ko yàq ci njabar ak xeet yooyu te benn njëriñ amu ko amut benn mucc bokk na ci ay yàqam léeg-léeg dana tax ñu teg nit ki loo xam ne defu ko maanaam teg nit ki loo xam ne defu ko mooy loo xam ne defu ko ci coobareem xam nga nit ki li nga xam ne danañ ko ca àtte di ko ci teg ay daan daa war a doon loo xam ne moo ko def ba noppi ba mu koy def def ko ci coobareem loo xam nit ki ba mu koy def teyu ko loolu lislaam du ko jàppe waaye bokk na ci yàqi njabar dana indi loolu nag dana tax ndax loolu maam yàlla du ko jàppe waaye ñun nit ñi nag ginnaaw xamuñ loolu li nit ki def rek ci la ñuy àtte léeg-léeg mën nañoo njabar nit ki ba mu def lu mu bëggutoon a def te bu boobaa ñun lañ gis ci moom rek loolu lañuy ñuy àtte kon bokk na ci ay yàqam mooy dana jur ñuy àtte ci kaw nit ki loo xam ne defu ko ci coobareem te li gën a jaadu nag mooy lépp loo xam ne danañ ci mere nit ki wala ñu ko ci dal na doon loo xam ne moo ko def ba noppi def ko ci coobare boppam ju mat sëkk bokk na ci ay yàqam mooy euh, day dindi confiance ci diggante nit ñi day mujj boroom kër saa su ne mi ngi ragal ne soxna soxnaam dana ko njabar soxna si mi ngi ragal ne boroom kër dana ko njabar liggéeykat bi mu ngi jàpp ne njaaytege bi da koy njabar ngir mu bañ a dem jaatige bi mi ngi jàpp ne liggéey eh, ki ki koy liggéeyal mi ngi koy jabar ngir mu yokkal ko wala nangam ak nangam saa su ne day mujj confiance dootul amati ci diggante nit kii di bañ a lekk ci kër kii kii di bañ naan ci kër kii ngir dañu ko fa jabar wala nangam ak nangam loolu tamit ci ay yàq bu fekkoon ne jabar amut xalaat boobu ak manque confiance boobu doo am kon loolu itam ci ay musibaam ak i yàqam la mbokk waaye bokk na ci mooy yàq gi sax day dem ba laal ñépp ndax léeg-léeg njabar gi dina yàqal nit ki ab liggéeyam kooko mënoon naa doon boroom njaboot boo ko yàqalee liggéeyam yàq yàqalaale nga ay soxnaam yàqalaale nga ay doom bu ko defee loolu day dem ba faw mbooloo mi yëg ko faw réew mi yëg ko kon lu doy waar doy waar la lu mat bàyyi xel la léegi nag ñu war a xam moom lan mooy àtteem lan mooy àtteem ci lislaam àtteem boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ci dafa xaraam am na sax ñu ko àggale ci ak kéefër daane ak njabar ak kéefër la képp ku ko def rek fa sansa daal doon yéefër am na ñu wax loolu ci borom xam-xam yi bari na lool sax donte nag wax ji gën a wér moo di ne lu àgg ci kéefër ñii wax ne yéefar la dañuy wax ne suñu borom da koo lëkkale ak loolu daane walakin shayatina kafaru yuallimuuna annaasa sixar waaye loolu mën naa bañ doon luy tegtale loolu ndax dafa wax ne seetaane yi ñoo weddi di njabar tegtalewul ne képp kuy njabar rek dafa weddi bokk na ci liy firndeel li ma wax nii ne laysa kullu saaxirin kaafiran nekkul ne képp njabarkat yëpp yéefar lañ mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax juróom-ñaari yi nga xam ne ñoo gën a rëy ci mboolem bàkkaar yëpp dana ijtanibu ijtanibu sab'al mubiqaat na ngeen moytu juróom-ñaari bàkkaar yi nga xam ne ñoo gën a bon ci bàkkaar yi te dañuy alage dafa njëkk a wax ne bokkaale yàlla mooy kéefar daa di soog a ci soog a teg nag njabar te bu fekkoonte ne njabar kéefër la du ko ci du ko ci tegaat ndax kon duggoon na ca biir wax ja muy juróom-ñaar yooyu mooy weddi yàlla bokkaale yàlla ak njabar euh, ak daw ci xeex diggante jullit ak ak lekk riba ak lekk ak li jirim ak euh, ak tuumaal nit njaalo ak rey nit shirkun wa sixrun wa qadfun wal firaaru riban maalul yatiimi wa qatlu nafsi saabiuha juróom-ñaar yooyu la kon dafa xaraam te jege ak kéefër te jege lool ba ni ma ko waxe yen ci borom xam-xam yi sax wax ne foo ko fekk yéefar lay doon waaye nag bu fekkente ne sax xas na jëmmi njabar gi ci boppam dafa làmbu kéefër loolu moom kéefër lay doon ci dëppoo jabarkat bi dem na ba gëm ne jinne ji mooy jeexital wala yu mel noonu wala mu ñàkkee warma alquran def ak mboolem jëf yi nga xam ne borom xam-xam yi dañuy wax ne ku ko def yéefar la bu baa dee daal doon yéefar moom ci lu amul benn wuute ki koy def nag lan mooy àtteem waaw bu fekkente ne ki koy def boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ci ne dañ ko war a rey fi ñu wute kay mooy ndax danañ nangu ak tuubam wala déet maaliki yi nag dañuy wax ne kenn du nangu ak tuubam kenn du nangu ak tuubam bu tuubee itam digganteem ak yàlla la waaye ñun nañ ko rey ba noppi ñett ñii lañ wax ne seenu tuub dee su ko nangu mutlaqan muy am njabarkat ak koo xam ne dafa wax wax ju ñaaw ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak euh, kii am naafiq akum naafiq ñetti ñi ñoom seenu tuub kenn du ko nangu xëy na yàlla mën na ko nangu waaye ñun laa wax duñ ko nangu lu tee danañ ko rey kon noonu la demee léegi euh, war nañoo xam itam ki nga xam ne moom njabarut waaye moo ko santaane ki wax ne njabaral ma diw wala nàngam kooku moom gisuma benn borom xam-xam bu ne yéefar la kooku moom dafa def lu xaraam faasiq la buñ ko ci xamee itam imaam war na koo yar bu fekkoonte ne attekatub lislaam moo fiy dox lépp loo xam ne daan yoo xam ne bu ko tegee dana tax mu deltu ginnaaw mu bàyyi loolu imaam mën na koo teg ngir mu bàyyi ko mën nañ ko cay teg ay daan insha allah léegi Euh, li ñuy mujjale ci pàcc boobu mooy léegi lan mooy àtteb kiñ jabar ba mu def dara koo xam dañ koo njabar mu fasi soxnaam te bëgg ko woon a fasi dañ koo xabtal mu def ko wala ñu jabar ko mu takk ko mu bëgg takk wala yu mel noonu wala ñu jabar ko mu joxe xaalis bu mu war a joxe euh, dañu wax ne mboolem lu mu def bu fekkente ne mbirum bàkkaar la ak tuyaaba moom yàlla du ko topp ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne lépp loo xam dañ cee forcer nit ki yàlla du ci bindal nit ki bàkkaar kon digganteem ak yàlla moom yàlla du ko topp waaye nag ci digganteem ak nit ñi ñun moom dañuy jëflanteeg moom rek ne njabaruñ ko ku njabar mu fase soxnaam fase ma dog na soxna sa tas na ku njabar mu takk kenn sëy ba fasu na waaw ku njabar mu joxe alal moom mañ ko jox nag moom mañ jox alal ja moom bu ko leeree ne lii ci njabar la day xaraam ci moom waaye ñun ñu ci des dañ koy jàppee lu dagan ndax moo ko xam ñun nag ginnaaw xamuñ ko dañuy jàpp ne na rek dañuy jàpp ne moo ko may xaalis bi looloo tax loolu bokk ci ay loram yi ma doon wax léegi mooy euh, nit ki di def lu mu bëggutoon a def nit ki ñu jàppe ko loo xam ne defu ko ci ci bëgg bokk boppam ak coobare boppam léegi moom nan lañ ciy fegoo nan la nit ki mën a def ba fegu ci ak ginnaaw lu am la te wax nañ ne lu lu lu lu mën a fitnaal liit la lu bari ay lor la nan la ko nit ki mën a fegoo bi ci jiitu mooy mu wéral pas-pasam ci suñ borom subhaanahu wa taala xam ne yàlla rek mooy sottal xam ne ñoom njabarkat yi ci àddina bi yépp buñ mànkoo woon bëgg koo lor te yàlla àndu ci du sotti mu bàyyi xel loolu euh, mënuñ koo lor mukk lu dul ne loo xam ne yàlla bindoon na ko ci moom faaw loolu la nit ki njëkk a def ci xelam ba noppi daa fekkoon rek yàlla bindoon ko noonu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe woon abdullahi ibn abbas ne ko mbindeef yépp bu dajaloo dajalewoon bëgg laa jariñ mënuñu laa jariñ mukk ci lu dul loo xam ne yàlla ko bindoon ci yow ba noppi ñoom ñëpp buñ mànk woon bëgg laa lor itam mënuñu laa lor mukk ci lu dul loo xam ne yàllaa ko bindoon ci yow ba noppi mooy li bi wax ne kullu ma axtaana lam yakuni yuridu euh, kullu ma asaabana lam yakuni yuridu an yuxti min mahani Euh, hakada lépp loo xam ne dal nañu kenn mënu daa fekkoon yàlla tudd ko qul lan yusibana illa ma kataba allahu lana faw nit ki di bàyyi xel loolu kon te di ko dund laysa yakunu fi jami alaalamin muathirun fi atharin bokk na ci ciy dimbale nit doon ku teey ak ku dal dañuy wax ne njabar ku parax paraxi ku bari fitna la gën a mën a jàpp ci ku dal waaw seetaane bëggul ku teey ku yàkkamti la mën a àndal moom la mën a jëflanteel day bëgg def loo ko li muy def rek bu noppee nag di rëccu waaye boo dalee boo jékki-jékkee sa xel nekk ci ne ah naa fase kii da nga dal daan ne moom lan la ma def ndax def na lu war a tax ma wàcc ndax tooñ na ma ndax def na nangam nga nangam boo dalul nag da ngay gaaw daal gaaw rek jël sa décision kon dal at tey bokk na ci li ciy dimbale nit bu baax a baax a baax a baax suñ boroom junj na ko ci ne inna alladina taqaw ida massahum taifum min alcheytaani tadakkaru fa ida hum mubsirun cheytaan da leen ne jay yi xaw leen a jege waaye dañuy buñ dalee rek fàttaliku daal di xam fi ñu war a jaar xam ne lii kat ci seytaane la jóge ñu moytu loola kon bokk na ci li ciy dimbale nit ki waaye bokk na ci li ciy dimbale nit ki di jàng alquran lu bari wa ida qarata alqurana jacalna baynaka wa bayna alladina laa yuminuuna bil axirati xijaaban mastura kon dana dimbali dana ci dimbali nit ki bu baax a baax a baax di jàng alquran lu bari waaye bokk na ci tamit di tudd yàlla lu bari ci mbooleem tudd yàlla yi moo xam tudd yàlla yi ci sunna jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñàkk danañ ci jukki yenn insha allah wala yi jóge ci gaañu baax ñi ba ci xaside yi nga xam ne sëñ bi da koo def muy xasida yi ñaan lu mel ne matlabul fawzayni lu ne wakaana xaqan yooyu yuy dox diggante nit ki la ak seytaane yi te seytaane yi bu ñu mënta agsi ci yow seenu njabar du la mën a du la mën a gaañ insha allahu taala waaye nag fegu ko dañuy wax ne moo gën a yomb faj ko waaw fegu ko moo gën a yomb faj ko foofu rawatina bu yàggee ci nit ki nag ba xas ko sonal lool waaye nag du tee nit ki dana ko man bu baax a baax insha allah euh, yooyu nag muy jàng alquran ak yooyu ma wax noonu rawatina suratul baqara moom siiw na ci xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne néeg bu ñu koy jàngee seetaane da koy daw Euh, kon ñu jàng alxuraan lu bari rawatina lu mel ni sootul baqara dañuy wax ne lim gën a mën a def mooy dox diggante nit ki ak ñoom ba du mën a agsi ci moom bu fekkente ne nag kum nekk ci moom ba noppi boobu moo xaw a gën a jafe dëgg la dindi ko ci jàng sootul baqara ak yooyu mën naa nekk waaye mën naa gën a jël temps bu bare bare bare nag bu ba xas nekk ci nit ki ba noppi noonu la ko boroom xam-xam yi noonu la ko boroom xam-xam yi leerale waaye teewul wax nañ ci nag ay tegtal yu ci gën a gaaw yoo xam ne yépp jëlee nañ ko ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam muy euh, lixlaas ak falaqi ak naasi boo seetloo bi ñu koy dindi ci moom yonante bi sallallahu alayhi wa sallam falaqi ak naasi ci lañ ko dindee moom moom bu dee mocc gi dindi gi ci falaqi ak naasi wala nga boole ci lixlaas ci lañ ko gën a mën a defee incha allah moo tax rod na ci xadis ñuy wax nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxtu bu daan tëdd daana tàllal ñaari loxoom daal di jàng lixlaas falaqi naa si ñetti saar yépp guddi gu jot tifli ko ci ñaari loxoom daat koy raay ci xar kanam gi ak ci bopp bi ak ci mbooleem yaram bi daat koy def mi ñetti yoon loolu borom xam-xam yi wax nañ ne luy dindi ay njabar ak xeet yooyu la te di ko fekk incha allahu taala waaye bari na ci yeneen itam yoo xam ne da ko mën a xam incha allah bari na ci kii incha allahu taala ci xadiis yi waaye bokk nañu itam la ilaha illa allah waxdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli cheyin qadir loolu wax na ne boo ko waxee téeméer yoon benn seytaane du la jege bu ko defee bu boobaa seen jabar yooyu du mën a agsi ci yow waaye ni ma ko waxee loolu nag ci li muy gën a jëm mooy kum nekkagul ci moom hmm. moog lu mel ne xasbi allahu laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim muy mujjantal bu laqad jaakum juróom-ñaari yoon loolu itam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ku ko képp ku ko wax juróom-ñaari yoon ci gannaaw timis suñ boroom dañ la fegal lépp lu lay tiital lépp lu lay lépp luy xeetu fitna rek booba suba di jot boo ko waxee suba gi noonu ba ba ngoon di jot kon loolu tamit musulaay bu baax la bu mat a bàyyi xel ba tey aoudu bi kalimatillahi tammati min charri ma xalaqa noonu bismillahi alladi la yadurru ma ismihi shay'un fi noonu yooyu ku ko mën a saxal da ngay am xel mu dal ci ne da nga mucc ci mboolem xeet yooyu insha allahu taala euh, waaye ni ma ko waxee junjoon naa ko léegi euh, fegu ci ak saafarawu ci dëgg la ci alxuraan ak ci xeetu zikr yi rot ci la gëne ci la gën a mate waaye am na itam xeetu meññat ak xeetu gàncax yoo xam ne suñ borom moo ci def barke moo ci def barke barke boo xam ne mooy dàq seytaane yi gisoo tàndarma yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne képp koo xam ne jëfandikoo nga juróom-ñaari tàndarma ci suñ tàndarma ju rafet jii nekk ma dina noonu la ko waxee woon nag dëgg la euh, benn xeetu poson du la gaañ benn seetaane itam du la jege ci la boroom xam-xam yi dégg ne dafa waxoon tàndarma jooju waaye bépp tàndarma ju set wécc rek ci la bokk mën naa bañ a doon tàndarmay Madina ci boppam loolu boroom xam-xam yi leeral nañ ko jëmmi tàndarma rek la da da moom da koy dindi te da koy fekk tamit am na jagleel boobu moom tàndarma ba tey euh, euh, waaw bokk na ci yi nga xam ne rod na noonu tamit xobi déem rod na ci lenn ci saxaaba yeeg mel noonu ñu daal di wax ne sangoo ko sangoo ndox mi bokk na ci li am jeexit lool bokk na ci yi nga xam ne seytaane yi dañ koy daw bokk na ci yi am jeexit ci dindi eh, feebar bu nekk ci nit ki boo xam ne boo xam ne njabar a ko waral ba ci eh, olive diw gi moom suñ borom junj na ko ne min shajaratin mubarakatin zaytunatin la sharqiyatin wala garbiya ba tey loolu tamit jëlee nañ ko ci lenn ci saxaaba yi muy wax ne diwu olive bokk na ci li am solo lool ci dindi njabar ak fekk ko ak aar ci nit ki waaye euh, bokk na ci ba tey nàmputal nàmputal mooy kii boobu ñuy def di génne deret ju dee ci nit ki rawatina xeeti njabar yi nga xam ne luy diisal yaram la ak di taayal law yaram nàmputal lu am jeexit la ci ci wet googu incha allah bokk na ci yi nga xam ne boroom xam-xam wax nañ ko ci itam lu mel ne lay duur lay duur lay duur yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne assanaa shifaau min kulli daa in illa saam lay duur day fekk feebar yépp ba mu des dee moo tax boroom xam-xam yi wax ne njabar gu nekk ci nit ki feebarloo ko rawatina bu dee gum lekk wala gum naan mu am jafe-jafe ci biir bi wala yu mel noonu lay dur bokk na ci yi ko gën a mën a dindi loolu itam borom xam-xam yi wax nañ ko loolu tamit xadis bu wér la yonent bi sallallahu alayhi moo ko kon noonu la demee faju gi ak fegu gi mënees na ko defe ci alquran ak ay tudd yàlla yuñ xam waaye mënees na ko def itam ci xeeti gàncax ak meññat yi nga xam ne yàlla ko sàkk waaw yàlla moo ci def barke boo xam ne seetaane yi duñ ko ñeme duñ ko jege waa kada lenn rek moo ci am mooy bu dee takk moom moom la borom xam wax ne alxuraan rek lañ koy def ak ay tur yàlla yuñ xam bu dee yee mën nga koo naan wala nga sangoo ko la yu mel waaye du doon lu ñuy takk ndax euh, day nuru ak wéeru day nuru da wéeru ci loola walla yu liñ koy mottalee rek mooy ñaare yu mel nii waxtaan wu mel nii ku ko dégg dana am yenn yenn mbir yu xara yu xaw a toq sa xel yooyu nag lañ bëgg a dabaatal indi ci ay leeral insha allah bu njëkk bi mooy bi may leeral ne njabar lu am la tudd naa xadiisu xadiisu saxiixayni ne labidu labidu labidu ibnu al asam al yahudi moo njabaroon yonente bi salallahu alayhi wax ne xadiis bu wér la léeg nit ki mën naa wax ne loolu naka la yanoo maanaa te suñ borom wax ne wallahu yasimuka min annaas suñ boroom wax ne wala yuflixu saaxiru xaytu ate kon naka la kooku di njabare yonent bi sallallahu alayhi wa bañ wax ne jàpp na ko ba diisal yaram bi tontu bi mooy bu de bu dee wallahu yasimuka min annaas moom bokkut sax ak lii bokkut sax ak mbirum njabar gi wallahu yasimuka min annaas yàlla dan la musal ci nit ñi ci ñu lay ray ak bépp gàllankoor boo xam ne dana tax doo mën a jottali woote bi yàlla dan la aar ci loola boo loo aaya bi ci foofu la dikke xam nga dane yaa ayuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam tafal fa ma ballagta risalaati daat ci soog a teg wallahu yasimuka min annaas na nga jottali li la yàlla yónni daal ne ko nag dinaa la musal ci nit ñi ba duñ la mën a gàllankoor ci loolu duñ la faat duñ la mën a gàllankoor ci woote bi te njabar gi leeral naa ko jeexitalut moom faat ko la bëggoon moom waaye sottiwut euh, waaye jeexital gi mu def ci moom itam euh, ajuwul ci woote bi ci jëmm ji rek la jeexital yaram la daan diisal ak yu mel noonu bokk na ci nit ki dana bu dégloo yu mel ni dana faral di wax ne léegi bu fekkente ne nag koo xam dañ koo njabar mu demaat ci am njabarkat ngir mu dindi ko dañuy wax fakku sixri bi sixri mooy dindi ak njabar ci njabar bu fekkente ne am na kenn ku ko mën a dindi ci lu dul loolu ci alquran wala ci mboolem yeneen yi nga xam ne anam yu dul njabar la amul benn boroom xam-xam bu ko daganal day xaraam bu fekkente ne nag dafa sës ba tey ku mel ne alimaam Malik moom da ciy tengal danaan lum sës sës na muñ wala ko a fekk fekk ko ca waaye daganul mutlaqan ku mel ne alimaam yi nag moom dafa wax ne déedéet bu boobaa mën naa dagan ngir darura daan yitam ki nga xam ne da cay fajoo rek kooku da caa jariñu sax te loolu wu ca te suñ borom dane wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum daan ne Shaafi'i day jàpp ne moom bu boobaa doonatul ak njabar ndax njariñ la te suñ borom nee na njabar moom day lor te du jariñ Shaafi'i moom da koo xaw a woyofal Euh, bu ko defee nag li ciy des nag day dellu rek ci kem pas-pasu nit ki aku wakiiloom léegi ba tey bokk na ci xaw a kii ci nit ki mooy wax naa léegi ne mënees naa fajoo ci xeeti garab yeeg meññat yeeg yu mel noonu ba tey ci biir wax ji wax naa ne xëy na itam njabarkat yi dañ koy faral di jëfandikoo lu bari moo tax ñenn ñi di ko jaawale ak njabar fi may leeral yi xaw a nuroo ak njabar te fekk bokku ko bokku ci nit mën naa wax ne léegi kon boo gisee ak nit noonu rek mu yor ay sungufam ay garabam yoo xamante ne tajriba nañ ko ci faj njabar ak yu mel noonu ndax yow dagan na nga di ca dem xamoo ba xam am njabarkat la buy jëflanteeg ay jinne wala boog moom ci garab yi rek la sukkandiku dafa dafa doon ku am xam-xamu garab yi rek di faj ci garab yi bu boobaa nooy def loolu dangay sukkandiku ci kaw gi rek li nga gis ci kawam rek ci ngay àttewoo bu fekkente ne gis nga ko sàgganewul julli mboolem yi nga xam ne jullit ñi dañ koy def yépp ñu ngi koy def di sàmmoonte bu baax a baax kooku li nga xam ci moom da ngay jàpp rek ne du njabarkat waaye nag bu fekkee da nga koo xam mu leer la nañ ñi ne day faral di sàgg ne yenn julli yi wala nangam ak nangam wala euh, muy de euh, def yoo xamee ne ñaaree njabarkat moo koy def yooyu day daal di jege lool pour nga mën a àtte ne kii euh, am njabarkat la bu ko defee nga nga bañ a dem ca moom kon yooyu daal bokk nañ ci yiñ ci bëgg na leeral insha allahu taala dañoo waxoon ne thème bi dañoo bëgg ñu waxtaan ci wàllu njabar ak wàllu carte de wàllu carte moom sax xay na moom mooy gën a tënku insha allahu taala ñu man cee wax lu gàtt rek insha allah moom it luñ mën a luñ mën a jariñoo insha allah waaw kon bokk na ci yi nga xam ne yu tasaaroo la ci jamono ji comme jabar ni mu tasaaroo tasaaroowee rek tasaaroo bari lool lool ci réew mi te bari ay ngaañ-ngaañ ak yàq loolu ñuy tuddee carte kart kart nag bu ñu koy wax mooy bépp xeetu jëflante boo xam ne lu mat ñaar jëm kaw ñoo koy def te saa su ne nga xam ne da ñoom ñëpp dañuy dajale seeni alal bu ñu ko dajalee ba noppi nag faaw dana ci am kenn ku gañe am kenn ku perte saa boo xam ne loolu am na ci rek dajaleem alal moo xamee ne dañ ci jubloo euh, mu juraat dara te bu ko defee nag ci ci sens rek lay aju ki am sens mën naa euh, nekk ne mooy gañe mooy am bénéfice ka ca des mën naa nekk ne mooy perte faw waaye ñoom ñëpp pertandoo mënta nekk ñoom ñëpp gañeendoo mënta nekk loolu la ñuy tuddee kart moom lañuy wax may sir moom la wax may sir moom la suñ boroom di tudd noonu ci suratul maida daal di wax ne sobe la ci jëfi seytaane la bokk moom njabar gii ñu doon waxtaane sax la suñ borom lëkkale foofu ci aaya bi إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان kon euh, mënees na ko wees na ko bàyyi xel bu baax te di ko moytu bokk na ci yi tegtale ak bonam mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne képp ku giñ ci lu dul yàlla ci xeeti xërëm yooyu ñu daan gëme na waxaat laa ilaha illallah duggaat ci diine ji képp koo xam dafa wax ki muy waxal ne ko ñëwal ñu carte na gaaw saraxe te tuub na saraxe te tuub na saraxe ngir tuubee ko daal kon Euh, carte lu araam la moom xam-xam yépp dëppoo nañ ci amul benn wuute bàkkaar la te mata lool dafa am nag ay façon yu wuute yu baree bari bu dee araam yi moom ni ñu ko daan defee rek mooy ci misaal kii day joxe junni kii joxe junni kiy joxe junni ñu boole ko buñ noppee euh, kii joxe kii daal di jël ab bant daane bant bii mooy tegtale sama jëmm bii di tegtale sama jëmm bii tegtale sama jëmm kee bii tegtale jëmm kee bu noppee ku teewutoon jotaay ba wala ab xale wala yu mel noonu daal di ñëw jël ku bantam génn rek mooy jël xaalis bi yëpp fukki nit daal ci misaal bu ñu dajalee ku nekk joxe junni muy fukki junni bu noppee kenn ku nekk mën ngaa jël sa tur bind ko ci aw këyit ñu jaxase ko jox kenn wala boog kenn ku ci nekk jël ab bant mu doon sa bant ñu jox képp koo xam ne bantam génn na rek jël fukki junni yëpp waaw lépp lu xeetoog loolu nag lépp loo xam ne noonu la demee donte doonul loola bay benn sax te ci lay dugg benn la nga xam ne xaalis yu ñuy daje daal muy dem ca kenn rek loolu lépp itam ci xeetu ci xeetu kart la bokk kon nañ ko moytu bu baax a baax a te rawatina ñun waa kër sëriñ bi ñoo war a gën a fonk fàggu lu lew boo seetloo sëñ bi buy wax ci fàggu lu lew da ngay gis yitte jëm koy jox da koy jox yitte bu baax a baax a baax a baax wa talabul xalaali fardu yantami li kulli muslim bi gayri wahami fajtahidu wajtahidu fi talabil xalaali wa huwa lazi yardaahu dul jalaali na ngeen góor góorlu ci di fàggu lu lew da ngeen ci góorgóor la wax waxut da ngeen fàggul la waaye na ngeen ci góorgóor bu ngeen ci nekkee ba noppi na ngeen ca farlu nag kon euh, carte lu mat a moytu la lu mat a bàyyi xel na li ci xaw a gën a doy waar nag mooy da bari ay léegi dafa yomb loolu léegi nit ki ci biir néegam lay toog di ko mën a def nit ki mën nay toog ci réew di ko def ak ñu bari ci àddina bi mbooloo ci àddina bi teg seen xaalis kenn nekk biir néegam xaalisam bokk ci xaalis ya dem wala wala boog mu jël xaalis ay mbooloo yu bari ci biir néegam yooyu yëpp day mën a nekk ci jamono ji lépp ci téléphone yi ñu koy wax alximaarul électronique carte boo xam ne ci eh, téléphone rek lay amee bokk na ci yi nga xam ne xeeti réseau yeeg yooyu ñoo ko yónnee naan Euh, nga xam ne dangay ngay boo yónnee SMS daal di fay bu ko defee ñi yónnee SMS nag euh, la ñuy xool ñoom kan moo ci gañe nga xam ne bu fekkente ne kii dafa yónnee ñu dagg ci moom juróom fukk kii yónnee ñu dagg ci moom juróom fukk def ko def ko def ko ba muy fukki million bu ñoppee ñu génnee ñaari million wala dana séddale ko nit ñi daal di ñooy ñooy ñi gañe bu ko defee ñenn si ñëpp daal di perte loolu ci xeeti carte yi tasaaroo ci xeeti téléphone yii la eh, te mata moytu bu baax a baax a baax moo carte bi la rek ci daganul kenn di ca dugg carte la carte la dëggantaan bokk na ci yi am ci xeeti fas yi su fas yi ngay wax ne fas sàngam mooy raw nangam nangam eh, bu ko defee boo ko bu fekkee dëppoo naag loola nga daal di nga daal di gañ moo xam yi aju ci Lonase la ak aju ci yooyu yëpp rek xeetu carte la boo xam ne dafa xaram am na ci yoo xam ne yooyu yëpp ci am na ci yoo xam ci biir réew mi la waaye am na ci yoo xam ne ni ma ko waxee bitim réew la dafa yaatu lool eh, waaw kon loolu eh, li ci mat a gën a bàyyi xel mooy ginnaaw dafa tasaaroo ci jamono ji xale yu bari di ko def Euh, kilifa yi ñoo ci war a gën a xoolaat kenn ku ci nekk di nemmiku seen njaboot di xam ci lan la ñuy nekk loolu nañ ko gën a bàyyi xel bu baax a baax ndax carte kat dafa bari ay lor lool moom it bari na yàq yàq lool yu muy jur bi ci jiitu rek mooy day yàq pas nit ki day fàttaloo nit ki yàlla suñ borom dafa wax ne innama yuridu shaytaanu an yuqia baynakum al-adaawata wal-bagdaa fi l-xamri wal-maysiri wa yasuddakum an dikrillahi wa an salaa kon day indi ak noonoo ci diggante nit ñi ndax lu ci ëpp ki ñu moom da daal di bañ ka ko gañe mooy loolu dana fàtte nit ki dana nekk ba waxtu julli jox sax du jug julli ci wala buy julli xel ma ca nekk lu may waaye suddakum an dikrillaahi wa an salaa bokk na ci ay yàqam mooy day tax ndaw ñi bëgg noflaay ba ëpp ndax day doon wutukaayu xaalis bu jàppande lool day toog fi muy toog rek bu defee nag loolu musiba la bu demee ba ndaw ñi nanguutuñoo sonn ngir liggéey yàq-yàq gu rëy rëy di daal di di daal di judd waaye bokk na ci ay yàqam mooy day daaneel économie ndax ni ma ko waxee bu fekkente ndaw ñi sawaratuñu am cawarte am pas-pas di gën a farlu ci liggéey bu yàggee économie réew daal di wàññi ko day daal daanu looloo tax kon euh, moom it lu mat a bàyyi xel na mbooleem ñi nga xam ne ñoo yor dogali réew mi war nañ cee jëlaat ay matuwaay bu baax a baax a baax ndax mbooleem société yi koy def kat ñoo leen may ñoo leen signeel carte yi tax ñu sañ koo def ci réew mi kon loolu képp koo xam ne mooy doxal réew mi war na bàyyi xel ne lu lépp ci aw loosam la tegu lépp lu mu ci joxe sañ-sañ nit ñi di ko def ci réew mi fii ñu ngi koy def bàkkaar bu ci juddoo rek moom da cay am la waaw bàkkaar bu ci juddoo rek moom da cay am wàllam yàqu-yàqu bu ci juddoo itam ci wàllu économie ak ci wàllu mbooloo mi lépp na xam ni ci aw loosam lay tëb kon euh, loolu lu mat a bàyyi xel la ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax gën cee euh, gën a bàyyi xel ndaw ñi bu baax a baax te di leen fuglu bokk na ci ne itam ni leen ci dimbalee mooy wutal leen liggéey ndax ñu ci bari dañoo amul liggéey amuñ ci luñ jàpp bu ñu amoon ci luñ jàpp rek duñ amati jot bi waaw ndax dëgg la léeg-léeg mu may leen xaalis waaye lim leen di teg fitna tamit léeg mën nañoo dajale alal ju bare bari ñàkk ko ci benn minute ay millions mën nañ koo ñàkk ci benn minute kon euh, loolu euh, lu bàyyi lu mat bàyyi xel daal kon euh, ñu ngi tënk foofu rek di sant suñu borom subhaanahu wa bu baax di ziar sëriñ bi teew sëriñ Sidi moom sëriñ Abdul Qadir di am mbégte bu baax ci teewam ci jotaay bi kii ko ñaanal suñu borom fayal ñu ko aw yiw ci baaxam ak yërmande ak Sëriñ Tuubaa waaleykum salaam wa rahmatullah euh, jërëjëf sëñ Abdul Ahad Euh, wax dëgg yàlla waxtaan wi am na solo lool euh, mu doon lu lu kawe njortu wax dëgg nga ñëw ci ci ay tomb yi am am solo rek insha allah xam naa dañuy tënk rek ngir waxtu wi waaye wax dëgg nga ci waxtaan wi ca nañ ko euh, séenoo woon lu kawe njortu nga ñëw ci njabar nga xam xamle nga xamle ko lan mooy njabar muy ñaari xeeti njabar benn bi mooy bi gën a mag mooy bi nga xam ne nit ki day jokkook ay seytaane ay seytaane ñoo ñoom lay jokkool ñu koy orienté maam nga xam ne ci orientation seytaane yooyu ci lay ci jaar bi ci des nag nit ki mooy def ay pexeem def ay euh, mbiram ba yàlla dogal seytaane yi am na ci ak moom euh, su ko defee maanaam lool daal di loolu daal di am muy ñaari xeeti njabar yooyu nga xam ne benn bu ci nekk rek lu xaraam la euh, waaye tamit nga ñëw ci njabar Euh, conséquences yi yi mën a indi daal yi mën a indi yi mën a indi nit ki ay loram ak euh, su dalee nit ki yan mooy ay màndargaam yan yan mooy ay euh, nu mu tuddati ay jeexin talam bokk na ci danger bi njabar am rek mooy yonent bi sallallahu alayhi mi nga xam ne moom la yàlla yónni ci ñun njabaroon nañ ko mu jàpp kon njabar am la nga nga xamle ko kon njabar lu ñuy weddi lu am la ba yonent bi sallallahu alayhi nañ ko mu jàpp ba ñëw Euh, wàcc aaya alquran yooyu muy xul ahonse bi rabbil falaq ak xul ahonse bi rabbin naasi euh, saafara ko euh, nga jàngale ne bëri na loo xam nit kon mën na koo mën na koo gaar fekk ñabar e, la mu koy jëf te du ko tey njabar mën naa waral ko nit ki tàqale ko ak ki mu gën a bëgg njabar mën naa waral nit ki ñàkk liggéeyam mën naa waral nit ki xelam dem ak yu bare bari yoo xam ne njabar mën na ko waral su ko def su boobaa Euh, nit ñi mën nañ ko ko jàppee te fekk euh, ñabar la nga xam ne nekkulum tay kon euh, loolu bokk na ci ay loraangeem moom njabar jàngale nga tamit lees lañ ci musloo bokk na ci jàng al alquranul karim naka noonu tamit ay tudd yàlla yu bare bari yoo xam ne suñu borom subhanahu wax na ko ci alquran sax yaa ayyuhal lazina amanu zkurullaha zikran kasira wa sabbihuhu bukratan wa asila ak yu bare bari yu mel noonu yoo xam ne euh, mën na cee mën nit mën na cee fegu euh, nga xam ne tamit ne kon fegu ci fexe ba fegu ci njabar moo moo gën a yomb faju ci faju ci ndax bu bu la xësee ba dal euh, mën naa mën naa jafe lool ngir maanaam dañal ko ak yu mel noonu kon tomb yi ci indi bari na trop suñ ko bëggoon topp benn par benn Eh, defe naa ne dañ ko eh, dañ ci jóg waaye daal eh, lépp solo rek mooy njabar daal lu yaatu la loo xam ne mbokk yi war nañ ko bàyyi xel nga nga xam ne sax ne maa boo dee xool ci li mën a yàq mooy yàq gi mu yàq alal yàq gi mu yàq alal ndax soo seetee nit ñi ni nga xamee ne ñëpp dañoo daw jëm ci njabar nga xayma ne tey bu doon ci Sénégal njabarkat yi dañoo doon ab lim ci ab lim boo xam ne rek xamees na ko léegi euh, maanaam at mu jot wala weer bu jot rek am luy dem ci ñoom ci xaalis ci xayma dangay gis ne kon at mu nekk at mu nekk rek lu bare bari ci alal mën naa mën naa dem ci ñoom mën naa dem ci ñoom boo dee siibur internet boo dee mel noonu boo dee xool li fi nekk ci ay gisaanekat ak njabarkat yoo xam ne euh, dañ leen talal ay micro lenn ci nekk ñu cay wax luy bëgg a xew ak euh, lépp rek maam kenn ku nekk di di ci wax loo xam ne Euh, lu mu xam ak lu mu xamul euh, su boobaa tamit ñëpp maasi jëm ci loolu ndax nit ñi boo dee xool euh, dafa mel ne sa saytaane da leen a xirtal ci lenn lu ci nekk rek duñ jàpp ne yàlla moo koy joxe wala yàlla ci ñu ci war a wéeru waaye dañuy gis ne faaw nga làmboo ak maanaam ay pexe te pexe yooyu bokk na ci njabar ngir la mën a jotale ci loolu bokk na ci rek liñ dëgmal nii ginnaaw suba insha allah dangay gis ne maanaam euh, nit ñi daa leen jaral lu nekk ci ci sëriñ si ak ñabarkat yi ba daanaka dañ ci yàq euh, maanaam alal ju bare bare bari loolu tamit war a saxu cee bàyyi xel kon euh, mbir la moo xam mbir mu doy waar la moo xam ne bépp jullit war na koo moytu ngir bokk na ci li muy yàq pas-pas ndax comme ni ko alxuraan jàngalee njabar boo dee xool dafa xaw a dend ak kufru dafa xaw a dend wedd yàlla donte si du wedd yàlla ci comme xadis boobu nga jàngalee Euh, bàkkaar yooyu mu ne moo gën a ci bàkkaar yi dafa séparé asirk ak as-sihr kon euh, mën naa bañ a àgg ci wedd yàlla waaye dañ ko dañ ko dendal ndax suñu borom mi wax ci alxuraan wattaba'u maa tatlu shayaatiin alaa mulki Suleymaan wa maa kafara Suleymaan walaakinna shayaatiin kafaru xëy na seytaane ñoo wedd yu'allimuuna naasa waaye euh, njabar waaye ci beneen aaya sax suñu borom da mu ne wala wala wannahum aamanu wattaqaw lamasuu batun min indillaahi xayrun law kaanu ya'lamuun bu doon ñoom dañoo gëm yàlla te ragal yàlla bàyyi nja njabar yaag yu mel noonu la ma suu bot meneen di la xeyru law kan ya'lamun maanaam yool ba fa yàlla yool ba yàlla moo gën fuuf bu doon te xam nañu bu doon te xam nañu kon def naa ne loolu am am solo la nga ñëw ci waxtaan wi wax dëgg yàlla am na solo loolu simple laat ci nañ ko séentoo woon def naa ne mbokk yi déglu nañ ko teewlu nañ ko dañaa yàlla dañaa yàlla subhanahu wa ta'ala ñu ñu jariñu ci suñu borom boole ñu allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana kon defe naa lu am na solo lool eh, ci noonu rek ñuy nuyu eh, mbokk yi baax a baax ci turu eh, Serigne Moustapha ginnaaw bi tamit dana jox kilifa gi mu sànni ay kaddu waaye ci turu Serigne Moustapha nee na mu ngi sant bu baax a baax Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Abdou Khadir moom Serigne Touba teew na fi mu doon mbégte mu rëy rëy ci moom ngir bi mu sàkkoo mu teew dara jàll jëmmal jataay bi wax dëgg yàlla maanaam sëñ bi def ci lu kawe njortam. ku la xam ne ne weeru koor lañ nekk ak weeru koor ni sama baat ji ni ni mënee bari wax dëgg yàlla sëñ bi bàyyi ay iteem yëpp ñëw teew fi ngir kóllëre gi ma amoon ak sëñ Mamoor Mbàkke euh, loolu wax dëgg yàlla sëñ Mustafaa mu ngi ci sant bu baax a baax sëriñ bi di leen ñaanal yàlla euh, yàlla yàggal taxawaay bi euh, kóllëre gi ngeen seqoon ak sëñ Mamoor tamit jàpp na ko baax a baax sëñ Mamoor it fa mu nekk defe naa ne lii sedd na xolom yàlla yàlla suñu borom subhaanahu wa taala ànd bi ñu ngi sant bu baax a baax Euh, waaye naka noonu tam kilifa yi fi teew ñëpp sëñ baa ngi leen sant sëriñ Fallou Mbacke Abdoul Aziz euh, sëriñ Cheikh Oumy Mbacke Abou Fadal sëriñ Abdoul Ahad Mbacke euh, jiili mu mu mu Cheikh Mouhamadou Fadal sëriñ Galas Mbacke sëriñ Galas Mbacke Abdoul Fatah sëriñ Fadil Mbacke Doj sëriñ Mor Mbacke Ibrahima Doj sëriñ Moustapha Diakhaté Khadimul Khadim sëriñ Ibrahima Kebe naka noonu sëriñ Saalihu Ndindi ak sëriñ Cheikhouna Mbacke waaye ku ne xam ne tamit waa ñoo ñëpp ñu leen sant baax a baax waaye tamit seen daara yi nga xam ne ñoom lañ dara ñoom lañ tuddee tamit bis bi ndax aju mu jot rek dañ ko tuddee ay seen daara euh, sëriñ Daraw Gassama di ab jàngal ko te alxuraan yàlla jàmbaare lool moo délégation bi mu àndal ñëpp rek euh, sëriñ baa ngi leen sant naka noonu tamit sëriñ Mbay Njaay Xasan moom it euh, ànd na ak waa daaraam ak bi ñu ngi koy sant bu baax a baax di sant mbooleem waa jàkk jëpp rek imaam yeeg sëriñ Daam Njaay ak mbooleem ñu fi nekk ñëpp rek incha allah kon ñu jox sëriñ Sidi Mbàkke eh, mu sànni ay kàddu alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala man la nabiyya ba'dahu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi fi teew bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen baraq te leen baraq di leen ndokkeel ci weer wu tedd bi ñu nekk leen nekkaat ci bis bu tedd bi nekk mu yomal mi nga xam ne moo war jataay bi nuyu moo leen jabootu Serigne di nuyu moo leen jabootu Cheikh Modou fi teew yëpp di nuyu moo leen mbokk fi teew yëpp wax ji xam naa du jar mi gudd ndax lin waroon a wax lépp sunu doom jii di sunu jarbaat wax na ko wax ji mën na sëkk leer na nañ liñ ci soxla woon lépp leer nañu ko mbir nag bu matee loo ci yokk rek danga ko yàq moo tax wax ji du duñ duggaat ci loolu waxtaan bu am solo la ndax li mu doon wax lu mat di bàyyi xel la fi adduna yàqu na lool ci wet googu te léegi moom daa mel ni sax bu njëkk ñu ko daal di dañ ko daan nëbb waaye léegi na nëbbatuñ ko dañ koy publicité ci ci rajo yi ci télé yi ba ñi nga xam ne jàpp naa léegi ayatut kon na waxtaan waxtaane lii ba nit ñi xam ne sunu borom da ko tere ci tëkkoo ci dana tax ñu bare bari di ko moytu am na solo lool dégg nañ ci bu baax a baax itam ñu bari dañuy jaawale ak njabar ak ak ñaan ci biir wax ji da nga dégg ne lislaam nangu na ñaan moom njabar moom da ko daq kon am na solo lool Cheikh Moustapha am na mbégte bu baax ci ñëw gi ñëw fii fii moom sunu kër la sunu barab la ndax boroom kër gi kenn la woon ci ñun sunu mag la sunu kilifa la sunu xarit la sunu soppe la barab bii ba mu koy tàmbali ba mu koy ba mu koy bëgg a tàmbali rek am naa fi moom ba mu fi ba mu fi naa naal naa fi lii moom laa fi bëgg ba mu koy tàmbali si ñëw naa fi ba mu koy ubbi ñëw naa fi kon fii miin naa ko xam naa ko bu baax a baax sëriñ Maamoor nag kenn du ko fàtte ci ku ko xamoon ci pastéefam ci bëgg sëriñ Tuubaa ci bëgg bokkam ci bëgg lu baax boo xam ko ne doo ko mën a fàtte si mais du ma ko fàtte mukk ndax xam naa ci moom lu waree bari ndax yàlla def damay jàng naa ko tàmbalee daa jógee kër ñu sa witu ko fekk ci këram gee alxames daanaka ñaari alxames yëpp ñu ne daana fa dem baree bari mu jàpp loolu ci man baax na mooy ji daa gisee bëree eggatul foofu sax waaye toujours dañ daa déggante ci téléphone lu ko ñor lu ne tam daana ma ko waxoon yàlla kon nag boo ko dee def lu mel nii muy lii la bëggoon jàng alxuraan ak jàng ak ak taalibe boo ko boo ko tax saxalee fii ci barabam bii nga xam ne bi mu koy taxawee lii la ci naroon maa ngi mu koy ma ñëw ñëw fa ndax damaa xam sëñ jàkka te wër na bu fi newoon moo moo koy teg jàkka ji te moom ma koy jëlee kon nag daa bëgg ñu ànd moo moo la foo koy def lii la ma waxoon de ak itam noonu la noonu la ko wax bi ma ñëw ci kon nag lii nga koy def lu fa mu nekk xolam sedd na bu baax a baax yow mi nga jaar daal ñu ngi lay ñaan lu baax yàlla boo am benn pakk pakk yàlla bu am benn gàllankoor say bàyyi di naw nan la bu baax a baax naw nan lu baax ci saw doxin naw nan lu baax ci yoon wi nga jaar sëñ Maamoor bu fi dikkoon doo soppi aw doxin waaw ndax lii rek la bëggoon kon nag ñu ngi gërëm bu baax di la sant bu baax a baax te di la nag yàlla moo am menn gàllankoor te yoon yi nga jaar tam nga wéy ci rek nga xam mooy yoon bi sa maam bëgg mooy lu moo moo yoon bi tam ci sa bàyyi ne woon rek ak taalibe ak fonk ay bokkam ak fonk nit ñëpp loolu nag yaa ngi ciy góorgóorlu bu baax a baax kon ñu ngi lay gërëm di gërëm bokk yëpp nit ñi kat moom bari nan waaye nag ku leen yëgul doo leen soxla doo leen gis hmm. te yow nag am nga yëg ci ñëpp fexe ba nga fexe ba nga xam ñi nga xamoon say wërale baay yëpp nga di leen toppatoo loolu nag lu am solo foofu bil haaj in hada kaana mas'uula mm-hmm. yàlla wax yooyu nag wax dëgg yàlla yaa ngi jàpp ko lëre boobu baax a wax wax dëgg yàlla yaa ngi yaa ngi ci yoon wi mm-hmm. arab nag dafa woon yusaabi abuhu fama faram day bi xeq daa di fil karam waaye yooyu itam di tubarkalla mm-hmm. yaa ngi yaa ngi ci sa yoonu baay bu baax a baax jërëjëf ñu ngi sant bokk yëpp di gërëm nag xam naa waxtu yi moom fi ne bësoo bi yu bari danoon bëgg daal di jëm ci yëfu bësoo bi waaye sama xol sedd na bu baax ñu ngi sant yi fi ñëw bu baax a baax ñëpp yàlla na nga ko yàgg a taxawu yàgg ko woote yàgg ko ànd ak yow ci barke Sëriñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu Thank